AFT TV moo leen di may xikmatul yawmi xikmatul yawmi ak Serigne Saliou Sy AFT TV mun qaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana al-uda bada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisani waxlulan minhu al-uqad wa shalhu dakiran wa shakiran abada waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida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 ji ñu tuddee Cheikh Mamadou Mourtada mu nekk Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 wala 33 951 49 44 tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo te mooy àggale leen tàmbale woon ak yéen fan yi muy xew-xew jamono bi nga xam ne lëmbee na jamono di tawat ji wala mbas mi ñuy woowee coronavirus te fan yi ñu andi woon ci Eh, yu waaye tey ñu fàttali istuwaaru mbas boo xam ne pes lañ ko doon tuddee mu amoon ci jamono ku tedd ki Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul muy 1918 ak 19 amaat na sax 1930 gannaaw sëriñ bi waaye 18 ak 19 moom fii la ko fekk tam doonoon mbas mu métti moo xam ne ni métti ga doy na waar ba mënee su ko misaal Euh, métti ci senegal gépp nag waaw ci senegal gépp la métti woon ak ci Afrique dëkk yu métti dëkk yu bare bare ci Afrique wax nañ ne booba day euh, taalibe yu bari ci mag ñi laa la wax ñi nga xam ne nii day ay murit saadix lañu woon ñu baax a baax ci leen dem comme ni mu dalee woon saxaaba yi ridwanullahi taala alayhim ajmain ci jamonoy Seydina Omar ibnul Xataab am na ku ku baax ci mag ñi koo xam ne nii cala dem moom mook ñeenti soxnaam ak ñeent fukki taalibeem ak juróom-ñetti doomam te booba sëñ baa ngi fi jamono booba mm, jamono boobu métti woon na lool waaw métti ba àgg si dañu daan taal mm, nit ñu nit ñi faatu ndax boobu kenn du leen laal ndax peste da daan wàlle wàlle bu gaaw ba noppi itam boobu amutoon garab waaw kenn du ko kum dal ñaare ñëpp dañuy jàpp na kii day faatu ndax booba euh, médecine mm, ak ak séegut fii ci wàllu science moo tax daanaka ñim daan dal ñëpp dañ daan ñàkk ci ñoom yaakaar da nga daan gis koo xam ne day dal mm, bàyyi bàyyi boppam wala ndeyam wala ku ko jege walla doomam waaye duñ ci am benn pexe lu dul sori ko bu faatoo ñu rësal néeg ba ci kawam taal ko wala ñu taal dëkk ba daal di toxu sanc beneen dëkk dëkk yu baree bare yi nga gis nii tey jii taaloon nañ leen bañ tàkk ba ba mu defu dóom ñu sancaat ko te ñu faatu woon ca pest ba moo ko waral sëñ itam di ko nangu dogalub yàlla koo xam ne nii ba pest ba amee itam ba ñëpp jaaxle si ba sañ bay jaxaate ñëwee eh, wax ko waxam yooyu ne ko xanaa yëgoo ko ba mu génnee dana yëg naa ko wallaay waaye dama nangu dogalub yàlla ci ca la taalifee xasida ak yaa rabbi bil Mustafa al Muxtaar min muqdari daal di wax ne waaye nag jeex na ak gëm dogalam tax na am na ci mag ñi koo xam ne nii daraan def lum jur rek mu faatu kum am mu faatu mu ñëw ci sëñ bi nag ne ko samay doom de da ngaa bëggut ñu ne fi ñu nga bëgg seeni doom nekk fi ñu ngi fi wax ko wax ju xaw a xaw a doy waar. ba mu amaatee doom daal di wax ko sëñ bi sëñ bi daal di bind ab téere daldi woo mag ñi fi nekkoon ñëpp booba mag ñi ñi ngi fi mu kenn ku nekk mu mu wax la nga bindal doomam jooji ab téere ñu bindal ko téere yu bari jox ko mu daal dem ñu ñu ko ko takkal ko ko waaye mu daal di faatu ba tey mu ñëwaat ci sëriñ bi ne ko la ma la waxoon rek da ngaa bëggut samay doom ne fi mu ne ko ñun ñëpp de ñaan nañ liñ bëgg kii def def li ko neex. kon faaw ñu delluwaat ci yàlla moom mi nga xam ne nii mooy def lu ko neex te sëñ Tuubaa mosu caa jóg te mosu ta jóg ci di ci delloo taalibe yi nañ nañu weetal yàlla te xam ne ni moom rek mooy borom mbir yi mooy borom sañ-sañ mooy borom mën-mën mooy borom kàttan te lépp lu muy def du ja amut kenn ku muy tàggu te da koy def nam ko bëggee nañ delluwaat ci yàlla bu baax a baax nañ delluwaat ci yàlla dellu fa ñu diine bàyyi woon bu lu mel nii amee te mooy di di di di di fegu di fegu yii ñuy woote muy set diine ko njëkk digle ndax koo xam ne nee na la bis bu ne na nga jàpp juróomi yoon del sango wa siyaabaka fa taxir sa yére nay set fal yansur linsaanu ila taami li ngay lekk nay set tey sel kon yii ñuy wax yëpp eh, digle yi diine la digle yi lislaam la digle yi lislaam kon war nañ koy fonk bu baax a baax war nañ ko fonk bu baax a baax ah booleeg itam eh, fegu gi ñi ciy boole jékki itam di toog wàññi ab jaxasoo ba yi jàll lool di lu baax a baax la waaye boole itam di ñaan ndax ab jullit nag dëgg-dëgg amul lu dul ñaan te lii suñu borom rek ci man dara adduwaahu silaahul mu'min ñaan rek mooy ngànnaayul jullit eh, di fonk bu baax ñaan gi nga xam ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam joxoon na ko euh, Ousmane ne ko ku ko wax ak suba suñ borom dana la musal ci balaa ak musiba ci bëccëg ba lépp ku ko wax ak timis suñ borom dana la musal ci musiba ak balaa ci guddi gi lépp kon day mel ni ku képp ku koy wax saa boo jullee timis ak saaboo boo jullee suba sun borom dana la aar ci yi ndax guddi ak bëccëg rek ne ci àdduna te ñaan nga lu yomb la mooy bismillahi allazi laa yadurru maa ismihi shay'un fi lardi wala fi samaai wa huwa samiu alalim bismillahi allazi laa yadurru maa ismihi shay'un fi lardi wala fi samaai wa huwa samiu alalim yomb na kon nañ ko fonk bu baax a baax te ñaan suñu borom tabaaraka wa mu musal ñu wa ala kulli xaal yi yu fi jaaroon la jaar gu gën a métti jaar gi te ñim daan dalit nit ñu baax lañ ñooñu gën foofu mag ñi booba ku leen gën a mokkal alxuraan ak ku leen dàq durus xasiida amut waaye suñu borom tabaaraka wa taala mooy doxalee noonu mbiram eh, booba dañ daan diri nit ñi takk ci ak boom diri daal di sànni ngir bañ leen a laal am na ci mag ñi kum daloon mu daal di yónni doomam ak i taalibeem jox leen addiye ju bari yónnee ko ci sëriñ bi ne ko ne leen bu ngeen demee nee leen ko na ma ñaanal ma bañ a bokk ci ñi ñuy diri bu ñu faatoo biñ ñëwee wax ko sëñ bi lu mu leen ci tegal eh, nee leen ko na ñaan deeyaale ak ngëm ndax gëm yàlla ku ko deeyaale buñ la sangut sanguñu la jullewuñ la ñaanaluñ la itam du la wàññi dara waaye képp ku deeyaale wut ak ngëm buñ la sangoon sang la jullee la ñaanal la it du la jariñ dara kon sëñ Tuubaa foofu la nekkoon fi la daan delloo nit ñi kon nañ doon ay nit te nite bu baax baax teg sunu mbir ci yoon ñoo ngi sant waa daara Hikmatul Yawmi ñëpp ci liggéey bi